bokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di siyaare bokki taalibe yi ñu fi fekk yépp euh, di wax tam ne xam naa ne wax ji du mën a gudd ndax nit bu fekkee dafay jëfandikoo xelam ku ne xam na ne waxtu wii ak jataay bi ni mu yàggee euh, booy jëfandikoo sa xel mayatul sax ngay téye nit ñi di wax ak ñoom ci benn biir bi bokkul ci bokkul ci xel mu mu gudd ba tax na euh, kàddu yu gàtt lay doon rek waaye kàddu itam mi ngi bàyyi ko ci suñu kilifa di suñu mag muy sëriñ maam Cheikh Anta Mbakke mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ Modou Rokhaya euh, ak sëriñ Cheikh Gawane Ka muy kàddu cant ak ngërëm yu bàyyi ko ci sëriñ maam Cheikh waroon a jaar ci làmmiñu sëriñ Cheikh Gawane Ka ngir mu jottali ko bi ñu ñëw tam ñu ànd ak ay bokk ay kilifa yoo xamante ne bii euh, ñoom ñëpp. ku ci mel ne sëriñ alaaji Bousso fekk nañ ko fi mu bàyyi ko ci sëriñ Bass moom sëriñ Abdul Xaadir te bu ñu buñ ko fi fekkee rek day mel ne ci délégation bi ñu nekk la bokk sëriñ ak suñu kilifa di suñu mag muy sëriñ Mouhamadou Lamine Baara Bousso moom sëriñ Abdul Wadoon ak sëriñ Abdul Xaadir moom itam di suñu rakk bi ñuy ñëw tam ñu ngi ànd ak euh, sëriñ Amsatu Saaw ak euh, sëriñ Mam Baara Ka ñoom ñëpp ñuy ay bokk te di ay kilifa di nijaay sëriñ Mam Mortam ak sëriñ Modou ak sëriñ alaaji Fallou Diop bi ñu ñëwee itam fekk nañ fi sëriñ Cheikhouna Mbacké fekk fi sëriñ euh, maam Cheikh Anta Samb sëriñ Cheikh Anta waxoon ne moom moo amoon yéene ñëw teewal ci boppam ci bés bi ngir xam na li Mam Mor doon ci moom ndax bu fekkonte ne bi bis bi dëppee wuñ ko sëñ Modou Mamoun sax Mam doon na ci moom loo xam ne fu mu woote rek war na ko fa fekk rawatina bi nga xamante ne bii doon na ko ci moom te nungul ko tam li mu doon ndax kenn ku ne xam na ne yoonu Serigne Touba lañ ciy rawante kilifteef képp lay doon te moom nee na xam na cër bi mu ko jox xam na li mu doon ci moom te jox na ko cër boobu ba mu mat sëkk boobu mu ko jox tam mooy cër bi mu jox Serigne Cheikh Gawane Ka ndax xam na ne ñoom ñooy ay nijaayam ba tax na lépp loo xamante ne bii maamoon nekk na ca kon ñoom ñoo ci war a jiitu ndax su fekkonte ne bii nekk na sax ci lu mu wër te nekk. su leen su leen neexee ak su leen neexul danañ teg seen loxo ndax ñoo ko jaboote rawatina nag bi nga xamante ne bii yàlla xiir na ko ci muy tege ci yoon wa nga xamante ne bii ci la ay maamam tege woon ndax koo xamante ne bii sëriñ Abdul Muttalib Bousso doon doomi sëriñ Afiya Bousso ak waa juróom bu jigéen soxna Ndey Jatra di doomi Baye Serigne Jatra muy doomi Serigne Mor sa Jatra ñaari barab yooyu koo xam ne juddoo nga ci euh, mel ni mu mel nii mu mel nee na ñi ko xamul ñooy xam ne ñoo xam ñoom ñoo xamul waaye ñi ko xam-xam nañ ne nii rek la war a mel su meloon neneen la leen di jaaxal waaye moom nii la war a mel euh, mi ngi koy sant bu baax a baax di ko encouragé it mu góor góorgóorlu te xam ne booy liggéeyal Serigne tubaa doo yox-yox yi doo geesu it ndax li Serigne Moustapha Mbacke wax na ko fi léegi rek ko loo xamante ne bi Serigne tubaa amu ko woon mag ñi àndoon na Serigne Touba amuñ ko woon képp koo xamante ne bii bëgg nga ko yaa nar a sa bopp bul yox-yoxi bul dellu gannaaw te xam ne boo ci góorgóorloo la fa nga bëgg a àgg danga fa àgg incha allahu yéen ñi nga xamante ne bii tam yéen a nekk ci dëkk bi te mu nekk seeni loxo Serigne Cheikh Gaawaan nee na ci turu Serigne Cheikh Anta mi ngi leen koy dénk bu baax a baax a baax ndax ku ne xam na ne ndaw la luy doog a dugg àddina na xelal aajana dimbale aajana jàppale te loolu kat bu fekkonte ne bii moom nekk na fi wala ñun ñi ñëpp kenn nekk fi ñun ñoo war a nekk ci wetam di ko xelal ak jàppale bi mu fi nekkutit Sëñ Tuubaa boole na ko ak yéen ñi nga xamante ne bi yéen a nekk ci dëkk bi te it suñ borom tàggat leen def leen taalibe yi Serigne Touba yoo xam ne ay yàgg ngeen ci yoon wi kon nee na dénk na leen ko teg na ko seeni loxo ngeen dolli ko di digal te di ko dollee teral tere ci loo xamante ne bii naka sudu noonu la waaye lim gëm sax mooy sëñ Maam Moodu nekk ci naka sudu noona ndax amul benn kilifa gu mas a nekk ci naka sudu noona kon mi ngi seeni loxo ngeen xam ne fii mu nekk yéen la fi nekkal li muy jëf di ko liggéey sëñ Touba tam kenn nit mënut a liggéeyal sëñ moom dong mënut a liggéeyal sëñ Touba ci lig anam gu mel nii ndax naam kenn ku ne mën ngaa liggéeyal Sëriñ Tuubaa waaye liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci anam bu mel nii kenn ku ne xam ne kenn nit mënu ko mais yéen ñi nga xamante ni bi yéen a àndal liggéeyal Sëriñ Tuubaa mi ngi leen koy doolee dénk bu baax baax tey ñaan ci barki Seexul Xadiim tam lépp lu ci yiw wala muy ak ngërëm lu bàyyi ko Sëriñ Tuubaa borom boole leen ko euh, yéen ñi nga xamante ne bi maire ñi ngi lay siyaare bu baax a yéen ñi nga xamante ne bi yéen a yor dëkk bi tam ak mboolem autorité administrative bi euh, ñi ngi leen di sant bu baax a baax ci ni ngeen jàppee Sëriñ Mamor ak ni ngeen koy jàppalee ndax olof yi dañuy wax ne geenu golo gudd na waaye loo ci laal rek borom yëg ko ni ngeen ko jàppee naam sori nañ ña nga waaye lépp xam nañu ko ñu ngi leen koy doolee dénk bu baax a baax te xam ne fii mu nekk na ngeen xam ne lu ngeen ko lu lépp lu ngeen ko defal rek Sëriñ Tuubaa ngeen ko defal lu ngeen ko wax lu ngeen ko wax ci lu baax itam Sëriñ Tuubaa ngeen ko wax ndax tennam génnul Sëriñ Tuubaa koo xam ne Sëriñ Bousso bi mi nga xam ne mook Soxna Jaara ñoo bokk ndey ak baay mooy sa maam maam Mor Jaara mi bokk ak Sëriñ Tuubaa bokk ak Sëriñ Tuubaa benn baay di sa maam kooku xam na ne génnul Sëriñ Tuubaa fenn kenn ku nekk xam na ne sëriñ Tuubaa képp la ba jeex kon nag ñu leen koy doolee dénk bu baax a baax xam na ñi ngeen ko jàppee xam nañ ñi ngeen koy jàppale waaye ñu ngi leen di ñaan ngeen dolli koo jëmale kanam di leen tam ci barki Seexul Xaddim euh, yi nga xam ne dégg nañ ko fii ñun dal na suñ xel bu baax baax a baax ndax olof yi dañuy wax ne buñ ne nit baax na dañuy wax ne ndax ko wax mais ñi ngeen dëkkal li ñu wax ci yéen itam doy nañu bu baax a baax ñi ngi ñaan ci barki Serigne Touba mi nga xamante ne bii lu fi waaye am rek moo la ko jox lu ngeen yor yàlla na ngeen ko muurloo leneen lu lu lu lu gën ci yéen tam yàlla na ko suñu borom ñoddi ba mu ba mu gën ba mu teg ko seen loxo te su ngeen ko jotee ngeen jariñoo ko ci barki Seexul Xadiim ñi ngi sant bokk yi yëpp di gërëm bokk yëpp mboolem foofu bokk bàyyi ko moo xam ñi bàyyi ko Touba ñi bàyyi ko Mbakke ak ñi bàyyi ko ñi dëkk ci dëkk beeg ñi bàyyi ko Ndakaaru feneen ak bokki sëñ Mamor ñi nga xam ne ñoo bokk nekk fii ku mel na sëriñ Abdou Lahad ak bokk yëpp sëriñ Cheikh nee na mi ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm te di leen ko doolee dénk ngeen dolli koo jàpp dolli koo jàppale mi ngi noonu ci seen i loxo moom ba mu xasee nekk ci yéen rek làmbatul xoolatul gisatu ci seen i loxo la nekk te xam na ne bu fekkonte ne bii nekk na fi ci nak sudul noonu it fa mu nekk ca Touba dana ko jot waaye li muy jot ci fii li mu ci li muy jot ci moom dal na xelam dolli na tam yaakaaram ñu ngi sant bokk yëpp di ñaan ñi ñu fi daje yàlla nañ ko fi daje at yu bëree bëri yàlla ñu suñ borom jàppale te dimbale ñu defal ñu kenn ku nekk ci ñun sa jéego yi ñëw ak yu dellu yëpp suñu borom def ko njéggal def ko yërmane te defal ñu xeewal yu kawe suñu njort ci barki Seexul Xadim sant nañ bokk yëpp gërëm nañ leen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kàddu yi kàddu yi ngërëm la rek ak kàddu yi cant di ko jëkk ci borom dëkk bi muy chef de village ñu lay gërëm bu baax yaakaar naa rëccuwuñu woon li ñu lay dénk dëkk bi. ñi nga bokkalul diine sax bu ñu xew la nga bàyyi loo jàppoon dem toog ak ñoom kon chef de village ñu ngi lay gërëm bu baax di gërëm bu baax imaamu dëkk bi mais di beral ngërëm it sunu sous-préfet bokkuñu diine waaye ci ngoon maak moom ñoo fi bokk nekk muy ku am taxawaay ci bés bi kon bu ma ñëwee loolu it war naa ko mën a seede ci moom kon ñu ngi koy gërëm bu baax ñu ngi koy sant di gërëm waa dëkk bi yëpp mais di jël ngërëm moo xam ne si sama xol laa ko tibbe di ko teg ci loxo Mamor mii mu tegal ma ko si képp kuy sëtu Serigne Touba dëkk ci commune Bambilor wala dëkk sax ci 4C yi seen jëwri nekk nii di sëñ Mouhamed Mbacké seen porte parole nekk na la di sëñ Moustapha ma leen di gërëm bu baax damay faral di wax ne ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk fii ngeen fekk ñu fi kenn ku ci ne ci ñun heure bu jullee war na leen ñaanal heure bu jullee war na leen ñaanal ndax bu dul woon yéen sunu njaboot sànku ndax manu leen woon leen teg ci wenn yoon wi kon bu ngeen ñëwee bàyyi seen lépp ñëw ànd ak sunu njaboot ànd ak sunu njaboot teg leen ci yoon woo xam ne ñun moom la ñu bëggoon waaye te ko kon rafet na ndaje mënu ne bu nu jullee bu nu wooree lépp lu nuy def ci àdduna war nanoo noo gërëm sëti sëriñ Touba yi nekk ci tund yi si sama kàddu nag ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di ñaan yàlla. yàlla na yàlla yokk seenu fan yokk seen wér gën leen a may xel mu ngeen mën a dugale xam-xam ci sunu njaboot barke biig dama fi ñëw ma bàyyi ba guddi ma woo Serigne Moustapha ma ne ko bés bi de da bés bu ma bokk ndax dama am toujours benn kàddu bu may wax sëti Serigne Touba yi ànduma ak ñoom ngir politique xamuma ndax dinañ wate wala duñu wate musuma cee dem ci kenn nit ne la kat damaa bëgg nga jàppale ma pour ma falu te du amit ba mukk te loolu laa ñaan yàlla dunde ak ñoom kon bu ma ñëwee ci bésu Maam jóg ànd ak délégation dajale mbooloo sama gannaaw loola ngistal lay doon dëgg taxul ma di ko def moo tax bi may ñëw oowuma benn responsable kenn laa oo muy Serigne Moustapha Mbacké ànd ak moom ak sama soxna jóg a tëngéej ñëw guddi ñëw fii la ma ci man war koo def ma ñëw def ko ndax loolu laa séq ak ñoom kon sëriñ bi maa lay gërëmaat bu baax di la sant eh, rafetlu ni nga yore sunu jarbaat yi sunu doom yi ndax tey li aadama def fii àdduna mënu la yàgg ba way juróom man ko cee def sama jarbaat a ngi nii di doomi soxna Kandji ñu xam maamam bu baax mais tey loxo yi mu tàbbi àgg na foo xam ne tey ku ko doon seetaan ak way juróom rek du mën a àgg foofu muy moom muy keneen muy keneen ak keneen kon maam Mor jaajëf ni nga taxawee nag Bambilor noonu la Serigne Moustapha Mbacke ma la taxawee Gorom Gànn Njaay noonu la sëñ Mouhamed mii taxawee Sàngalkam sëñ Mbacke Madina taxawee ko Waye Mbaam euh, sëriñ Cheikh Mbacke taxawe ko euh, Mbët boo demee naftal naflaay sëñ Mourtala noonu la fa taxawee kon ñun ñi dëkk ci tund wi gërëm sëti Serigne Touba yi. sunu njaboot rek la nu yor te bu ñu fi nekkee woon neneen nag si sunu njaboot nu jëlaat sunu njoboot te bu boobaa nag duñ ci man dara mais dañ noo féete foo xam ne ñun mënuñu faa féete sunu njaboot kon yàlla na leen yàlla fay di gërëmaat bu baax maam tey 31 la xoolal bés bi nga dàkk nga ñëw gërëm de tamxarit xarit xool leen ni tamxarit xate sëriñ mu Moustapha Mbacke tànn bésab tam xarit fu waaye nekkoon dina bàyyi lu mu jàppoon ñëw tamxarit tamxarit gu nii lu ñu doon def mooy ndaw yi dañu doon wër rek ñiy puudaru nekk góor ñi bëgg a nekk jigéen jigéen ñi bëgg a nekk ay góor xoolal Serigne Moustapha tànn bés boobu na si laay jaayanteeg Serigne Touba te li nga ci jaayanteeg Serigne Touba Serigne Touba may na la ko tey 31 mars gu ne la muy xalaat mooy bu guddee ku ne sol ko simam ànd ak ka mu war a àndal dem soirée maam Mor ne damay jaayante guddi googu. kon yaakaar naa ñun ñi nga xam ne suñu njaboot ñoo waroon a nekk ci yooyu ngeen génn suñu njaboot ci yooyu ñun dañoo am ak yéen cantagul leen di sant guddi na yéene ji bari na waaye maam Mor daal jaajëf manul weesu jaajëf kon daal jaajëf di ñaan yàlla it tànk yàlla mu ñu koy man loo ni ko fekk ñaanunu yàlla di fi ñëw ngir délégation politique ñun xamuñu loolu politique nañu dem politique yi mais kilifa boo bëggee teral kilifa la lay teraloo kilifa mooy fu nit ne nga ok néew leen ñu dem man yaakaar naa loolu puukare weesuwu loolu te ñun soxlaatunu loolu moo tax am na responsable yu ma xaw a jàmm ne ma lu tax ba ngay dem àndoog ñun ma ne leen déedéet ndax sama ñaq laa doon yóbbu te ñaq wa man maa ko moomal sama bopp kama koy defal nag séq naa ak moom loo xam ne du politique bu ma séqoon nag moom politique muy mitin bu boobaa nu ànd ñun ñëpp dem meeting li ko kon maam Mor jaajëf sëriñ si jaageen jëf. ma bëggoon a wax waxtaan ak taalibe yi nag ci waxtaan bi Baye Ndiaga wax mu ne nun taalibe yi dañu xam ne njabooti sëriñ Touba yi nga xam ne <coughs> yàlla dogal na ñu ngi ci eh, ci ci réew mi ñëw ci dëkk bi nañu xam ne ni leen di jàpp ndax ku sant Mbàkke day yàlla dogal na yàlla teral na ko bu yàgg bi nga xam ne sëriñ Touba taata ay ñëwagut ku sant Mbàkke bala ngaa génn fenn dangay ngay wattu alxuraan. Mm-hmm. nee nañu sëriñ Touba nee na. màgg tari alxuraan ci mbàkke dama ko ca fekk waaye defuma ko ci bi mu ñëwee nag lëggéeyal yàlla lëggéeyal yonante bi yàlla fay ko loo xam ne lii fayu ko kenn mu fab aw xeetam ku sant mbàkke ak ku sant buso lu mu tuuti tuuti tuuti foo ko fekk na ko teral soo ko jéemee def neneen loo xam ne lii du noonu la lay gaañ doo ko yëg soo ko teralee bala yàlla di teral moom moo moomay du ko yëg mhm. kon nañ leen góor góorgóorlu jàpp leen teral leen waa jàpp fas yéene ànd ndax sëñ Tuubaa dama waxee loolu dafa na sama waa bokk yi amuñu lu may man kon maay ñoom sama taalibe itam amu lu may ñoom kon mënunoo teqali ko maa sëñ Ndiaga Fall mu ne nun taalibe nan fas yéene ànd si jàppale eh, doomee sëriñ Tuubaa yi seeti sëriñ tubaay yi ñoom itam ñu xam ne alal la sëriñ Tuubaa nu mën a ànd di liggéeyal sëriñ tubaa ñu teg leen fañ leen war a teg ñoom itam ñu teg nu fan ñu war a teg mu mu teg ci ne daayira yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi te daayira ba sa jiitu daayira bi mu yor daayira sëñ Tuubaa Mbaam loolu bi nga xam ne Mor Mor Xulle moo ko yoroon te wasanu gi yor ko daayira mu xaadimaatul xib na nga xam ne mu jaañ mooy njiit la daayira mu faatul bis nga xam ne eh, suñ fa Mbàkke muy wax moo moo ko jiite daayira mu kaari moom ala suñ ma Samba Fall jiite ko daayira ma suñ ba Modou yoo xam ne dafa bëgg ak daayira mu istixaama istixaama itam yàlla dogal nañ bii mu mu xaadimaatul xidma di ànd liggéey sëntu Tuubaa kër gi ba àgg ba mu àgg fii istixaamaa ñëw jàpp ci ah, ànd ak ñoom di liggéey ba toll ba toll fii mu bëgg taal bi yëpp fas yéene àndandoo nekk benn fas yéene liggéeyal Sëriñ Tuubaa jàpp ci kër gi jàppale yitam maamoor ndax nii ñu ko waxee maamoor ba ñu ko jàppale ñu ngi ci ñu ngi ci def lu ñu mën ndax xam na ne mi ngi liggéeyal yàlla mi ngi liggéeyal Sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa la Sëriñ Tuubaa la ko xoole nu fas yéene ko jàpp àndandoo jàpp ko li dëkk taalibe ci dëkk bi bu ñu góorgóorloo mën nañu koo jàppale ba dara du ñu tuuti loolu daal sëñ Njaga xoon ne mu ngi sant taalibe yépp ñu góor góorgóorlu fas yéene jàpp ci lëgub sëriñ Tuubaa bi ñu góorgóorlu fas yéene xam nu ñuy àndee ak sëti sëriñ Tuubaa yi xam ne sëriñ Tuubaa la noonu du leen xoole sëriñ Tuubaa lu ci waaye tuuti ñu ko joxee noonu xam ne sëriñ Tuubaa la ñoom itam ñu xam ne alali sëriñ Touba a xool ngeen baal na ko jërë ngeen jëf. sëriñ amul morom sëriñ Touba amul morom maa ngi ñaan ñëpp jug taxaw wax ne dañuy sargal sëriñ Touba génnal ko ko wax bu amul morom sëriñ Touba amul morom sëriñ Touba sëriñ Touba. ana ku bëgg maam yi Cheikh Sidil Muxtaar jàmbar ja Sëriñ Tuuba amul moroom soxna jaara soxna jaara jaara mariama jaara mami sey mawma jaara ma soxna mariama jaara ma mariama mariama ramama le roy waay la assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi rawatina mbokki taalibe yi waaye itam mbokki Sénégal ak fu man di nekk ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci sa tur ak ci sa sant tey baalu àq ñëpp te di baal àq ñépp te jéggul yàlla suñu borom te di ko tuubal ñaan mu jéggal ñun ñëpp suñuy bàkkaar ci wormaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam barkab xaadimu mu ngi jiital ci nuyoo boobu ak siyaare boobu ak ñaan gi Cheikh Sidil Maxtaar Mbakke ñu toog toogaayu Sëriñ Tuubaa ci kaw suuf di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te mu ànd ko wér waaye tamit di ca teg jëwriñam Cheikh Mouhamadul Mountakha mu Cheikh Mouhamadou Bachir di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu te di ko te dolli ko wér ak ki nga xam ne mooy kàddu Serigne Touba ci kaw suuf di Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir Mbacké Khadim Rasoul ñu koy ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi te dolli ko wéral te di ko sant bu wér ci taxawaayam ci bis bi bu baax tey nag kàddu yi daanaka lu yomb ndax kàddu yi cant rek lay doon ndax liñ bëgg a cant bëgg koo sant ti ñu jàpp ci cant gi ñëpp danañ lott ci tudd ko ci sunu làmmiñ waaye lu mën a xew rek kàddu yi guddee ak bu gàttee ak bu jubee ak mu dëng yépp sunu xol ak sunu xel moo sedd ci jaami yàlla yépp rawatina ñi jàpp lañ ci bis bi te teewal ñu ci bis bi te yëg bis bi cant googu nag ak soññe gu gàtt lañ ciy daal di teg jéggulu jëm baax jotaay bu guddi bi te yàgg waaye nii rek la mën a demee waaw nii rek la mën a demee ñu ngi jiital ci cant googu ñii ma jiitaloon sànq Cheikh Sidil Mokhtar ndax bis bi yëg na ko te joxe na ci ndigal ci làmmiñu Serigne Bachir Abdou Khadir tajab la na fii tamit yabal fii sëñ Alaaji Bousso ak Serigne Jili te suba yi tamit sëñ Ahmad Salim Dieng jiitu na leen fi ñu ngi santaat yi tamit sëñ Abdul Karim Mbakke ibnu Cheikh Mamadou Fadal jàpp na ci bis bi doon waaye tamit di sant soxna maam Mati Mbakke ibnu bintu Cheikh Mamadou Fadal di suñu waajuru jigéen ñu koy sant bu baax at mu jot taxaw ci bis bi jàpp ci def ko ni bisu boppam jàppal fi doomam di sama seex soxna ma Marème Bousso ak ñi mu àndal ñëpp waaye itam di sant njabootu sëriñ fàllu gépp la ko dala ci sëriñ Abou Mahmoud Fadal di xalifa sëriñ Fallou yóbbaale njaboot gi yëpp sant nañ leen baax gërëm nañ leen ndax njaboot dem nañ fi waxtaan ci moom te jàpp na bu baax te ñaanal nañ bu baax sonn nañ bu baax a baax sant yi tamit waa ahlu Mbusoobe yëpp di njiital sëriñ na Bousso suñu waajur xalifa sëriñ Mbusoobe di ko ñaanal suñu borom wéral ko ay ciram te delloowaat ko ci njabootam te yàggal ko fi lool waaye itam di sant waa Daaru Salaam gépp ci njiital Serigne Jili yi nga xam ne moo toog toogaay Serigne Modou Mamoune ci kaw suuf waaye jaarale ko ci jëwriñam doomam Serigne Cheikh Anta Mbacke sama nijaay yor kàddu Serigne Modou Mamoune ci kaw suuf. waaye itam cant ko ñu ngi koy jaarale ci sama nijaay ji toog alxaaji Cheikh Gaawaan Ka mu tegal ma ko ci loxol Daaru Salaam képp ak cantuk boppam moom ak waa Daaru Salaam yi aju ci Daaru Salaam yépp ci dëkk bi ak Daaru Salaam ko ca Touba ak Daaru Salaam ko ci Bambilor yëpp waaye itam di sant sunu baay baay Njaga Fall mi jëwriñu Serigne Touba ci lool te cant googu ci loxol imaam Mbacke Seck di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko fi waaye di sant suñu nijaay Serigne Abdou Lahad Mbacke Pakala ci taxawaayam bu rafet ak yaatalam bis bi mu ànd koog ñun te rafetal ko lool itamit taxat mu jot mu ñëw ànd koog ñun jàpp ci lool ñu ngi koy sant bu baax ak sama nijaay Serigne Abdou Khafour Mbacke Pakala. ak mboolem njaboot gi mu ilif di daayira Serigne Touba bi nekk akayis ñëw nañ fi ñoom tamit ànd ak ñun ci liggéey bi di sant waa kuréel xidmatul xadim ci njiital sëñ liggéey bi yëpp waaye di beral ak sëriñ Moustapha Mbacke sama seex sama xarit ñu àndal liggéey bi sosandoo ko yi tamit mu yàgg lool <clears throat> di sant bu baax sëriñ Mbàkke Madina ak sëñ Omar Bousso sëñ Cheikh ak sëñ Baara suñ sëñ Bass ak ñun ñu ndekkal ci dëkk bi waaye di bara ak cant sëriñ Moutala Mbàkke Noflaay ndax jëf na jëf ci rafet ci bis bi ndax bi ñu xëyee suba teel andi na fi ay fàkkuteef fi mbàkki mbàkki yu baax yoo xam ne mbàkki mbàkki yi fi nekkoon dóor na ci ba gàtt macha allah sant nañ ko bu baax a baax waaye tamit di sant. ak gërëm le chef du village alaaji Abdoul Aziz Gueye chef du village Bambilor ndax biis bi dañ koy tàmbali ñoo ko sosandoo woon man ak moom ak sëñ Moustapha Mbacke mi ak sëñ Limane Bousso Touba ay basang lañ daloon fii wërale wuñ fii dara da nga ay basang rek mu nekk bis bu woyof ci saayir waaye ñu ànd ko suñu am jóg ñu taxaw taxawaat ci rafet ba léegi nii ñu koy ànd waaw te waxtu ne da koy ànd ak ñun ba jeex tàkk ci lépp nag kon ci cantu dëkk bi tamit yëpp ñu koy teg sa loxo bu baax sant dëkk bi yëpp ak imaam nañ jàngal xuraan jekk ñun ñëpp waaye du sant koo xam si ne day ñun ñu moom honorable la maire la cheikh ndax sa taxawaay bu rafet ci doomu aadama yi sa taxawaay bu rafet ci askan wi waaye sax cofeel ci man bii sëñ Moustapha seere na ko nee nga seet suñ Tuubaa yi fi nekk yëpp say xarit lañ waaye man maa ci raw te ñëpp xam nañ ko lañ sañ a wax maa moom sañuñu koo wax ñoom ba ci sëñ Moustapha mi dëkkal sax dañu rusanti waaye maa ak moom comme doomi bàjjan ak doomi nijaay waaw loolu muy sama xarit bu yàgg boo xam si ne politique boolewuñu wax dëgg yàlla ndax ànd nañ ci anam bu nekk waaw ànd nañ ci mu nekk conseil ànd nañ ci ñu dàq ko mu nekkul dara sonn lool ànd nañ ci mu nekk délégation spéciale ànd nañ ci mu nekk di maire ànd nañ ci mu nekk député te yàlla na lekk lu gën a kawe loolu ci barke Sëñ Tuubaa di sant ministre Omar Gueye yàble na fi délégation bu am solo ci njiital bànn gànn Diop ànd ak gànn Ndoy ànd ak El Hadj Talla ak Aliou Lay ak ñum àndal ñëpp ñëw joxe participation wala ne moo bëggoon a waaye xat-xat yi leen tënk ci wàll bis bi tey waaye jokkoon na ci waxtaan na ci jëf na ci itam ñi ngi koy sant bu baax di ko ñaan yàlla dolli ko jàppale te woyofal yoon bi moom tamit ci barke borom di sant bu baax itam ku ñu wax Mademba Ndour nekk ci dëkk bi di ndaw jàppale dëkk bu baax jàpp na ci bis bi ndax taxawaayam rafet na ci lool ak mbay tabara mbàcc ak ñu mu àndal ñëpp ñoom ma bàll ak ñëpp rek ñu limee dañuy jëm waaye di beral ak cant yi tamit Cissé Ba joxe na otoom joxe alalam joxe chauffeuram joxe léppam nga xam ne tawat moo teemu ak si nii waaye bërki dem ba léegi otoom lañu yor te moo ci def la ci war lépp boo la jëbul chauffeur suñu bëgg a dem dem fa ay teraangaam tamit ñëw na bari na lool ñu ngi koy ñaanal suñu borom wéral jëram defal ko tawféex ak xewal di sant sunu sunu sunu xarit sunu xaritu bopp yi tamit bu baax di Modou Mamoune Dieng Baas waaw waaye nag xaw naa ko mere tuuti waaye sant naa ko bu baax a baax a baax a baax di nga xam ne mu fi indi boisson dama ko fàtt defar naa ci kàtt waaye boisson fàtt naa ko waaw taxawaayam ci bis bi rafet na lool albustaan ak ki mu àndal Serigne Moustapha yi sëriñ Jili Bousso Abdoul Wadoud sëriñ Moutada Lo sëriñ Lamine Lo sëriñ Mame Baraka sama nijaay di représentant xalif général de Mouride ca Gabon ak sama nijaay sëriñ Amsatou Saw di jëwriñu sëriñ Mame Mor Mbacke Mourtada ak sama nijaay sëriñ Modou ak sama doom sëriñ Modou Bousso ak sëriñ Galas Diop sëriñ Alaaji Bousso Abdou Karim tamit ci délégation sëriñ Bass Abdou Khadir sama xalifa yi tamit sëñ Ousmane Mbacke sant nañ ko bu baax teel na fee ñëw ànd ay sangam yëpp Ousseynou ak sëñ Fallou ñoom ñëpp ak sama doom yi sant bu sa yëpp waa ahlu waa Bannoo mu talib ak sëñ Afé bu sa yëpp sant nañ leen bu baax a baax a baax di sant daayira maam jaare yi bu baax daayira maam jaare yëpp ci tund yëpp waaye itam ci njiital Yaafaan Njaay Njaga Jaw di sant waa waañ bu baax a baax a baax a baax a baax ndax sonn nañ ci lool démb ba léegi ñu ngi fi ñoo fan Njaay Njaga Jaw soxna Sira Ba ak suñu yaay soxna Kànj fan Njaay Njaga Jaw ak suñu yaay soxna Sira Ba ak ñi àndal ñëpp sant nañ leen bu baax a baax a baax a baax ndax démb ba léegi wala barki ba léegi ñu ngi ci liggéey bi te waañ wi metti na lool tàng na lool waaye tamit di sant waa kër alxaaji Ndonga Fay bokkoon ci rendre hommage yi ci njiital Pape Faye ak Serigne ak astufay ajaar Ajaarsu ak Abdoulaye Cheikh Ndak ak njaboot gi ñu àndal yëpp maam Thierno Diouf ancien chef RCR sant nañ ko bu baax mu taalibe la wax ju de cofeel gi mu am ci ñun kenn xamul kenn mënu koo natt maanaam cant gi saa yu accès saa li feeg gisul lépp pare rek du mën a tëdd nelaw waxtu wu nekk rek mu ngi daw di ñëw di xool lu manqué lu ñu amagul lu nàngam toujours rek sant nañ ko bu baax a baax a baax ak Baye Gora Fall jëwriñu sëriñ Modou Kara ñu ngi koy beral ak cant bu baax tax taxawaayam rafet na lool ay berndeem bari na lool te si la ko defe ak jëwriñ Abdoulaye Sylla te jàpp na ci programme bi andi na otoom joxe na alalam ak xalaatam ak léppam waxtu wu ne mi ngi fi ñu bokk liggéey bi waaye tamit beral ak cant ak ngërëm cheikh daa wóorut sax waaye fi ne kon dinaa cheikhal Baay Cheikh waaye cheikh moom benn benn benn laa ko def te cheikhal naa ko njëkk jëm waaye Baay Cheikh moom moom moo am deuxième cheikh moom Baay Cheikh laa cheikhal waaye nag dama koy booleeg Sëñ mu defal ko la mu daan defal Cheikh Anta sant nañ ko cant xol koo xam ne si ni njaboot gi yëpp xam nañ ko mbokk yëpp xam nañ ko muy ku woyof ku baax ku bëgg Sëriñ Tuubaa ku sori ci ñun tamit lool lool lool dañ koy bàyyi ak Sëriñ Tuubaa daal moom dañ koy bàyyi Sëñ Tuubaa rek di sant daayira yi ci Bambilor yëpp kuréel yi Istikhama daayira mu Xadimatul Xidma daayira mu Fatul Bichri ak mboolem daayira yi ci Bambilor yëpp rek ak waa Kunu Ensemble Jannati kuréel boobu ak waa daayira ak yi daayira Touba Comico di sant bu baax aji mbaaw mbàcc suñu jigéen la suñu yaay la suñu xarit la moo joxe àddiyee kër Sëriñ Tuubaa gi ñu topp ak mu jot mu ànd ak ñun ci bis bi ñëwal si boppam teewal si boppam jàppal si boppam ànd ak suñu yaay soxna aja aji fan ngom di sant waa ahlu ndaw kunda ak sunu yaay soxna fat ja ci njiital Mamadou Bachir Ndaw ak Aline Khadim dañoo xaw a bari nag ñoom Baye Cheikh ñoom Pape ñoom ñëpp rek ak seeni soxna yëpp sant nañ leen bu baax a baax a baax di sant ñi nga xam ne ñoo yoroon organisation bi yëpp ci wàllu matériel bi ci wàllu rajo yi ci wàllu caméraman yëpp sant nañ bu baax waaye di beral ak cant yi tamit sama doom Mame Diarra Bousso ànd ak yaayam soxna Awa Diak ak délégation bu mag bu riis moom ànd naa ñoom ñëw bis su ñor ko lool ba ma demee këram di ci waxtaan ak moom dana ma doomu jox benn carte ren da dama bëgg nga xam ne maay maay def bis bi waaw bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi gi nga doon ci dama bëgg àdduna yëpp xam ma ngi doon toog ànd ak am ay yaayam ak tàntaam ak yëpp dëgg yàlla sant nañ ko bu baax di ko ñaan yàlla def ko mag magum lislaam magum mu saadix waaye di sant sama sang yi ñëw waa kër maam Cheikh Daaru Salaam ñoom maam soxna soxna Astu soxna Mbenn Ndey Mbenn ak siñ Cheikh Bambali siñ Cheikh naa Mbàkke ñoom ñëpp sant nañu leen bu baax a baax a baax a baax cant yi daal buñ buñ duggee ci yi sax xam naa daal kuñ tudd ak kuñ tudd kuñ tudd ak kuñ tudd yépp daal na nga yëg na sant nañu la bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw euh, ma xam ni ñu koy waxe ñi ki doon wax léegi ci ouverture maladie universelle la xaw ma waaw sant nañ leen bu baax seen taxawaay dafa na jàpp nañ ci bis bi te itam di ñaan mbokki taalibe yëpp askanu Sénégal yëpp jàpp leen te xam ne njariñu askan bi moo tax a ndax dañuy wax ne soxla bu doonee ñaar wér dafa ne waaw te wolof njaay tamit nee na fagaru moo gën faju kon nag li ñuy deful ngir fagaru askan wi la kon nañ leen jàppale bu baax jàppale suñ bopp waaye tamit toujours ni ma koy waxee rek di sant sama waa kër yi bopp yi di samay soxna soxna Alimatu Ka sama aawam ma koy sant bu baax waaye di sant ndeyu daara ji di bàjjunu daara ji soxna Astu Wàlla Mbàkke Abdul Karim sant bu baax a baax a baax di dollee santaat bu baax tamit Babacar Ngom président foyer des jeunes taxawaayam dafa na lool ci bis bi engagement mi ñu jëloon yëpp matale na ko macha allah di ndaw di ndaw lu bëgg dëgg bi ndaw luy liggéey askan wi tamit di sant sunu bàyyi Talla Ngom moom toujours damay wax ne jullit xàqan la jullit xàqan day gëm yàlla gëm dogalu yàlla moom daa bëgg Sëñ Tuubaa lool ba nu féete fi mu féete ndax nangu dogalu yàlla moo tax mu nangu li Sëñ Tuubaa li yàlla defal Sëñ Tuubaa ba bàyyi doomu nekk ci safar gi ñu weesu bi doomam di taxawal safar sëñ am jóg ñëw di def conférence bi doomu taxaw yëkkati kàddoom daan li ko gën a neex ci àddina ñu ko doon laaj mooy li ko ay waajuram nangul bàyyi ko mu liggéeyal Serigne Touba ndax daa bëggul ku dul Serigne Touba keroog gën a yëkkat jooy li ko gën a neex ci àddina moom doomam dana lool te wane na ko fépp ak bëggam Serigne Touba wane na ko fépp ci njabootam ci léppam kon ñu ngi koy ñaanal suñu borom dolli ko yàkkal ci kanamu askan yu baax a baax a baax waaye tamit waa daayira Jaalibatul Maraax ànd liggéey Serigne Touba mu ne ñu wax ne jana wala àllaaxira su ma ko am xottu gerte dinaa ko bokk ak yéen sama cant sama diggante ak yéen lottu naa ci wax ko bii li ma leen mujj wax. mbëggeel gi waajur di am ci doomam laa am ci yéen yëg-yëg gi waajur di am ci doomam laa am ci yéen ñoom ñëpp am na ci ñoom mag ñoom mag sax waaye teewul ay doom laa leen jàpp yëg-yëg boobu laa am ci ñoom kon nag maa ngi leen sant ñoom ñëpp te njiital am di jawrin ak jawrin Mati Jaay Adama Sidi ba ba ñoom ñëpp ñoom ñëpp sant nañ leen bu baax a baax a baax a baax leen ñaanal yàlla la ma leen waxoon rek maa ngi leen ñaanal yàlla yéen ñëpp soxna yi ku ci amul groupe borom kër yàlla ko yàlla may dénk borom kër bu ko nopp te noppal ko góor yàlla bu ci amul ko soxna tamit yàlla ko yàlla may soxna su ko nopp te noppal ko ci barke Cheikhul Khadim sant naa leen gërëm naa leen yàlla leen Sëriñ Tuubaa liggéey loolu ba faaw te dooleel leen liggéey bi di sant saas oustaz Serigne na Ndiaye mi nga xam ne moo yore daara ji di fi jàngale alxuraan di ku yaru baax di ku maandu loolu tamit di soññu ñu jàppale ko bu baax ci daara ji di andi seen i doom di si jàngale. ñoom di leen soññaat bu baax ci daara bu baax a baax a baax ñooñu ñooñu nga xam ne dañ leen sant ñi ñu war a sant ñëpp nag mënuñu leen tudd moom te yàlla waaye sama nijaay maa ngi lay seeral suñu Cheikh Gaawaan daal cant gii may sant ñëpp daal ci xew laa mi nañ koy wax. ndax toujours li may wax te sincère ci tamuy lu dëgg ci man yaay sama kilifa te loolu dogalub yàlla la mun ma ci dara samay waajur yi ca barsàq te yàgg-yàgg naa leen fekk ñoo boole ak yow te itam ngay nijaay ju man nijaay nijaay daa bari waaye matt yu wow yi da ca yu tooy ca bari da ngay nijaay ak matt woowu sëñ Fall daa waxoon ne nijaay bu la bu la mayul fas muy la jabar bi nga tage daje ca làmb ja bu la neexee nga dëgg waaw matal nga yooyu yëpp wax dëgg yàlla sant nañu bu baax benn violation rek la def tey nag def na erreur bi ñëw ndax day ñëw cantu jàmbur ba nag fësee da ba dàq lu mu sol waaw loolu moom du yoon te def na ko loolu moom ngeen kalaame moom ngeen bu ñëwati daal mu sol perkaal wala may lus waaw dawal ci yéen mu ne tuuti waaw ñu ngi soññaat xale yu baax ñu gën a góor bu baax ci topp siraatal mustaqim topp ndigali Serigne du yi li fi mat a wax ci soññee lépp sañ am jóg wax na daanaka soññee dañ koy tënk foofu ci biir kàddu si ñaam waaw sant nañ ko bu baax soññ jàpp nañ si communication bi jàpp nañ bisam na daal bisam na mu wane na wane na ne bisam na waxtu ne mu wane ko sant nañ ko bu baax a baax a baax bu dee damaa juumtaat ci lenn wala ci ñenn wala ci fenn maa ngi koy jégalu. soxna Xadi Fall sama jigéen sama xarit ànd ak délégation bu mag ñëw na fi moom itam maa bëggal boppam taaliba Cheikh la sant nañ leen bu baax yéen ngeen soññ soxna naa ni fay ak soxna Xadi Njëm bi bàyyi Fall bu Sëriñ Tuubaa la soxna naa ni fay xel comme kenn mënu ko ci waaye liggéey bi kenn mënu ko ci ak doomam soxna Xadi jàpp ci bu baax a baax kon daal nañ gën a boolewaat ñëpp boole suñu jëm boole suñuy ru boole suñuy xol jébbal ko Sëriñ Tuubaa lu dul Sëriñ Tuubaa nag da ngeen xam ne ñoruñu te doxuñu ci te xajaluñ dara suñu diggante suñu Tuubaa xajaluñ ci kenn waaw lépp lu nam ma taxaw suñu kanam na bëgg def suñu digg diggante liggéey suñu Tuubaa ci diggante doom lañuy jaar te mu liggéey di ndax dañ ko bàyyi suñu bopp te bàyyi ko bopp kon daal kàddu yàgg ngi noonu euh, ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaan ñu fekk ko ay at yu bare bare bare bare di wax kurél yi ñu ñëw tàmbali taal bi ñu toog fi xewloo fi kilifa yi dem ca dalya di dem ca dalya xewlu ñu mën a ñëwaat ñëwaat waaye kuréel xasida yi nañ toog fi ñu wéyal ci bi bu ko defee yabul sama ibnu Cheikh Alaaji Baaram yaay kilifa ak jotaay bi mbokk askan wi nekk fii di mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi sàkk nga ñaan leen ci sa barke maam Cheikh mu Faadal borom maam maam jullit yi nekk fii yëpp nañu gën a bennoo na xol yi booloo na jëm yi booloo te ñëpp ñu ànd liggéey Serigne Touba te xam ne liggéey Serigne Touba ñëpp la war di sàkku tamit nga ñaanal suñu mbokk yi ñu doon ñaanal ci bis bi ñaanal leen suñu borom yokk seeni leer suñu Ibrahima Bousso Serigne Moudou Mamoun bu ñu ko tuddee Serigne Balla Diatara Serigne Cheikh Oumar Diatara soxna Sakku njaay te njabootam nekk fii ak Alaaji Ndongo Faye ak sécurité bi nga xam ne eh, suñu kii daal xaar yabal leen fi ak sécurité bi fi ñëw yëpp sant na leen te sous-préfet yi tamit Abdou Aziz ñu nga lay yóbbante ak cant ci moom ndax bokkuñu diine te tey xat na ci ñoom loolu te bi mu jógee fii église la dem kon li sëñ Moustapha doon wax rek nañ ci am fulla gis nga ñoom ñi nga xam ne ñoom moom bis bi sax moom bi mu jógee fii demul fenn li mu wax mooy heure église jot na kon ñun tamit dañ am fayda xam dañu moom waaw gën a góorgóorlu baax a baax a baax kon sëñ Abdou Samad dañ lay bàyyi nga ñaanal njaboot bi ñaanal jullit yi di sant waa Touba yu baax ñoom bisu seen bis la ñaanal jullit yi nañ na aajo yëpp faj na xol yëpp tàppewu na jàmm sax ci diggante askan yëpp ci barke borom Touba barke sëñ Fallou Sama taalibe yi daal ñoo fi ne la alaaj baara sa baay lu fi am rek taalibe lu fi am ñoom waaw ñoom ñaan leen bu baax a baax a baax lépp jag lépp yéwén lépp jub te dara bañ a jib ci daraje Cheikh Oumar Fadal barkeb Serigne Saliou